loolu te lu jiitu lislaam loola amul woon lu jiitu lislaam manees naa wax ne jigéen daawul donn gone daawul donn waaye lislaam moo ñëw saxal loolu ñu am cër ni ko nit ñëpp di amee للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ci walu jangal jangale mu def leen ci ñu yem ci képp ni góor waree jànge ba àgg fu mu mën a àgg ci xam-xam noonu la jigéen war a jànge ba àgg fu mën a àgg ci xam-xam yonent bi alayhi moo wax ne sàkku xam-xam ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen kon ci wàllu sàkku xam-xam ak xam ak xamle amuñ ci lu leen di xàjjale fu ci nit ma fu ci nit mën a àgg rek muy góor muy jigéen war naa fexe ba mën faa àgg te loolu li ciy firnde mooy ci jamono yuñ ci alayhi salaatu wasalaam soxna yi ci borom xam-xam yu mag yi lañ bokkoon daanaka lu lu bari ci jigéen ñi seen mbiri diine seen ci soxna yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ daan dem ñu di leen ko leerala loolu day fekke ne kon ñoom ni góor ñi doon amee xam-xam noonu la jigéen ñi doon amee xam-xam xataa sax am na ay góor yoo xam ne dañ daan tam soxna yi di leen laaj ci mbiri diine ñuy tontu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne jël leen seen génn wàllu diine ci soxna si sababu sayyidatuna Aïcha la ci jublu woon comme loolu day tegtale ne ci wàllu xam amut xàjjale góor ak jigéen ñépp war a jéem a jàng ñëpp war a jéem a xam kem seen kàttan yëpp nag bu ñu koy wax day mel ne kuy xool mën naa am nga naan jaru ko waaye li tax mu jar ko mooy boo xoolee la jiitu lislaam ak yenn xeet yi dafa am ñu daan xoole jigéen ak place buñ ko tegoon ba lislaam ñëwee nag moo fa jële loolu lépp jox leen àq ak gëdd yi nga xam ne moom lañu war a am ci biir njaboot yi te mooy bi am na aw xeet woo xam ne bokkoon na ci seen aada boroom kër mën naa jël soxnaam jaaye ko comme ni muy jaaye aw fasam wala am mbaamam wala leneenam